mbokk mi boo toogee nga stressé sa xol fees sa yaram diis nga mel lu am naqar wallahi laysa ajmal min dikrillah dara gënul nga tudd yàlla yonte bi sal allah sallam nee na innahu la yugaanu ala qalbi wa inni la astagfiru llah fi lyowm miata marra damay toog sama xol am stress diis naqar واخ أستغفر الله تيميريون كبسبي في رواية والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم كبين الحديث مني والله جين تجرون ميجين كبسمي دينا توب يالا تأستغفر الله يالا أب 70 فوا كون بوكو جلتي ñun ñaata yoon lañ war a wax astaghfirullah déglu leen njëriñu astaghfirullah ci histoire imaamu ahmed binu hambel bi imaamu ahmed binu hambel da doon tukki benn guddi voyage bi metti na guddi na lëndëm na sori na sedd na ànd naa ngelaw mu ñëw ba si benn jàkk mu dugg julli ñaari rakk allah allahu alam lu mu fa julli ci ay rakk mu pare tëdd bëgg forbët noonu mu tëddee gardien jàkk ji fekk fa ne góor gi jàkk ji kenn du ci fanaan jullil nga génn waaye moom nag waxu ko man la imaamu ahmed déedéet ndax ñoom daan woon mbubboo seen tur mu ni ko sarax ma rek ma fanaan ba suba damay dem waa ji ne ko fii kenn du fanaan génnal mu génn tëdd ci buntu jàkk ji naka noonu waa ji delluwaat fekke mi ngi tëdd ci buntu jàkk ji mu ni ko buntu jàkk ji kenn du ci tëdd mu xiic xëcc ko diri ko ba ci diggu yoon bi sànni ko fa dem noonu imaamu ahmed tëddee ci yoon bi benn xabaas romb ko fa benn defarkatu mburu maanaam benn boulanger ne ko yaa cheikh looy tëdd ci yoon bi mu ni ko ah man de man aw ma fi njaatige moo tax ma tëdd ci yoon bi nii waji nak xabbaas bi da doon defar mburu ay xaaju guddi bu ko defee bu fajar bi dee xar fekk mu pare commencé jaay mburoom mu ne ko ah man demal wax dëgg na yàlla mën naa la yóbbee fi may defaree mburu mën naa la fa yóbbu bu ko defee bu suba nga dem nga wut wala nga continuer sa yoon imaamu ahmed ànd ak waaji waaji commencé defar mburoom imaamu ahmed mi ngi tëdd place bi nugg na naka noonu imaamu Ahmed noonu mu tëddee mi ngi xool waaji rek waa jaa ngi defar mburu mi wante li yéeme ci histoire bi mburu bu muy defar day nekk di ci wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mburu bu muy defar yëpp mi ngi ciy tudd yàlla di wax astaghfirullah affaire bi yéem imaamu Ahmed imaamu Ahmed laaj ko waa góor gi bi mu sànq ba léegi yaa ngi astaghfirullah loo gis ci astaghfirullah ak loo ci am waa naka yaa cheikh astaghfirullah bi bi ma ko commencé def yàgg na te musuma ñaan yàlla dara te mayuma ko lu dul benn du'a kese laa musa ñaan yàlla nangogu ko imaamu ahmed ne ko lan mooy du'a boobu mu ne ko lu lépp lépp lu ma mës ñaan yàlla nangul na ma ko ba mu des benn du'a mu ni ko du'a boobu lan la mu ni ko du'a boobu mooy maa ngi ñaan yàlla sa su ne yow yàlla balaa may dee yàlla nag ma wane lekk imaamu ahmed allahu akbar imaamu ahmed ne ko allahu akbar maa ngi nii man la imaamu ahmed te wallahi xaw ma sax la moo ma indi fii imaamu ahmed moo ñëw ba ci bërëbu waa ji allahu akbar mbokk jullit yi gis ngeen astagfirullah ñun nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf nu bàyyi ak ay xéewal mais xamuñu valeur u xéewal yi suñu jamono ji problème boo njëkk am tiis boo njëkk am naqar boo njëkk am li ngay njëkk def mooy woo sa mbokk boo amee problème circulation problème permis nekk ci goudron bi li ngay jëkk def woo sa mbokku colonel wala woo sa xaritu gendarme loolu ngay njëkk def boo amee problème mu sëy problème mu alal problème lu nekk sa mbokk ngay woo sa xarit boo demee nag ba sottiwul ba nga sonn ndeysaan léegi nag nga ni cëy ah gannaaw ba demee ni nii na ko bàyyi ci loxo yàlla foofu nga waroon njëkkee dañuy dem ba suñu yëf yëpp wow koŋ dëgër ñu ni ah léegi gannaaw ba demee ni nii na nga ko bàyyi ci loxo yàlla déedéet lépp lu nit di def yàlla lay njëkk ñaan جل جلاله وعز كماله بولين بجنك سيني دعادي قاو سيني بكاري فمبو جابلين استغفر الله جابلين استغفر